yule bëgguñu ñu daal di fësal seeni kanam bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag mënuñu ci dara. lu excessif ba mel la waa ji daal di xamle moom it. d'abord y a l'aspect du temps. yi ngay defar bi yooyu yëpp mieux vaut daal nga dem jënd ko. wante mu daal di tàng wala sax mu daldi sedd am na lu bari lu muy daal di nëbb. même oto lépp lu ñu dégager ci wàllum gaz ak tout ça la dafay déposé wu ci kaw ñoom yooyu ñu boo ko lekkee mën na la indi bépp jàngoro boo xam ne loxo moo koy dugal ci génn donc euh, muy bactérie muy virus muy champignon bépp doomu jàngaro boo xam ne mën nañ kaa wan wàllu choléra muy jaare donc ay biir yu feebaru biir buy daw ay biiru tënj yi. ñi ñu jotoon a tàllal suñuy lantinoor ndaxam xam nañ ko. am na ay yenn risque mais tamit il faut ngay xam fi ngay jëndee yoo tamit di am ay tàmm-tàmm daal. jaaykat yi nga xamante ni fi ñu nekk dafa jege poussière ay microbe wala sax yeneen yu mën a yàq ñu ne ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir daal ciy faggu bile jaaykat di ko firndeel. dafa laaj cet ak fomp baax ak di xool bu baax a baax boo setulee duñ jënd. yeneen jaaykat ni ñoom ñu daal di ñuy xamal ni amuñu kaayit bi leen di jox dogal ñu daal di jaay ci mbedd mi naam nag faaw nga wàccoog yenn yi. kiy jaay dafa war a dem gis doctor ñu defal ko visite médicale donc mu am li ñuy tuddee certificat d' aptitude à la manipulation et à la vente des denrées alimentaires maanaam kayit la boo xam ne médecin bi moo koy jox pour wane ne kii yaramam méngoo na ak liggéey bi mu bëgg a liggéey ndax njaay ci mbedd mi ñaari risque moo ci nekk yow miy jaay mën nga wàllaate comme ñi ngay jaay mën nañ la wàll donc il faut impérativement maintenant nga def certificat médical visite boobu pour ñu li ñuy jaay aussi nekk lu war a sell ci sous brigade bu Dakar rek lu mot juróom benn fukki tonne ci lekkin yi nga xamante ne anam bi jaarul yoon la service d'hygiène daal di teg loxo ci ñetti weer yu mujj ci atum 2023 ñi gàlloo set gi nag di ñaax askan wi ba ñu daal ciy góorgóorlu